lii xéewal la bu ñu war a sant yàlla la parce que euh, xam-xam mooy jëmale àdduna kanam euh, looy def xamoo ko rek da ngay làmbatu waaye bis bi nga xam ne CFP euh, Mbacké ñooy war a def formation pour toute la région vous voyez que CFP Mbacké ñoo ko gagné mais pour toute la région même pour les région limitrophes kon bokk lii lañ naan dañuy fexe ba réew mi ñëpp ay jot ci lépp lu ñuy jot Ndakaaru jot feneen ak lu ñuy jot ci centres urbains war a jël sa doom yóbbu ko ñu former ko am na ñoo xam ne mënuñoo ñëw foofu am na ñu xam ne sori nañ sant de formation yi bis bi nag léegi au lieu nit ñi di ñëw daf leen di fekk ji bu leen fekk jee toog ci benn gox ànd ak groupement femmes yi ànd ak jeunes yi former leen 15 jours si domaine boo leen soxla boo xam ne rek ñu ngi koy def CFP fële boo leen ko soxlaa ci mu fekk si leen toog ak yéen 15 jours former leen ci ba ngeen xam ne da ngeen di tolloog ki nekk ca déwtaax ya Euh, xam-xam boobu waaye mais loolu loolu mooy développement parce que bari na lu ñu mën a def waaye nu ñu koy defee la ñu xamul ñii nag ay boromi xam-xam lañ yor matériel bu doy ci biis bi ay tànt ay gaz ak frigo loo leen bëgg a yor nañ ko donc mën nañ jàngal éleveurs yi bu amee soow nu ñu koy defee formage te loolu soow mi dootuñ ko tuur dootuñ ko euh, wanteer dañuy jaay lii dund lii transformer lii euh, dugub jaa ngi fi. mboq maa ngi fi xaal jaa ngi fi loolu lépp mën nañ ko transformer def ay jus def ay ay ay confiture ci bissaab bi wax naa ko léegi lu bëri mën nañ ko def waaye nag faw nga xam nuñ koy defee ñii nag ak bi dañ lay fekk si ba bon la noo koy defee ba pare dañ ànd ak waa ITEA maanaam di nga dem sax ba nga xam ne di nga ko mën a jaay sax ci supermarché day am qualité ñu certifié ko autorisation Fra bi nekk ci nga xam ne yow mii li ngay jaay lu mucc ayib la nga xam ne kon ñii li ñu tàmbali li ñu am nii Euh, xëj na bis bi taxaw na fii de waaye bu ñu demee un an yaakaar naa ne dee ne bi est-ce que du ñu amaat laajaat yeneen bis bu ko defee ñiy jaar fi ñiy jaar fii. te yaakaar na ne loolu moo ñuy indil développement moo ñu indil koom-koom ba ku nekk ci réew mi fa nga ne nga fay am dara la ngay liggéey di la mën a jëriñ mu wax travail décent c'est-à-dire doo liggéey rek yam ci da ngay liggéey loo xam ne da la na mën a yore bu ko defee xale yi dootuñ fi jógee ti dem ay ndakaaru di jaay ay mouchoir di jaay ay ay serviette di jaay ay ay cure-dent déedéet dañuy former sa dëkk nga liggéey mën a dund dund bu mucc ayib bu ba nga xam ne doo ñëwee ka dem ca taaxe wala kay taxawaalo te yaakaar naa ne loolu bu ñu ko amee suñu xale yi duñ dem fen ndaxte bu ñuy tël naan ci yenn dëkk yi xëj na ñàkk pexe mais bu ñu leen ak potentiel bi fi am bis bi dem un peu partout yaakaar naa ne dootuñ bundu xataal kenn dafa ñuy dem euh, la ñu bëgg souvent du fa am waaye bu dee sa dëkk lañ la formé nga gis sa papa gis sa yaay sa soxna nekk nii dëkk seen kër gis sa sëriñ non yaakaar naa ne doo ko fa bàyyi bàyyi si liggéey di dem fet te loolu nag bis bi dina ko maye. bis bi ni ko gisee ñun ñu xam ni si formation bi lañ bokk ndax dafa ñëw au moment moment bi nga xam ne moom ko soxla ndax comme ni ko daan defee si bu njëkk dañ daan wootee fii di déplacé wu dem ba ay ku ngeen koy wax Mbaba garage ay ndindeeg ay yooyu pour def ay formation mais moment bi mu ñëwee nii xam nga li comme bi dama déplacé wu pour dem si gox yi. Euh, mën a dimbali secrétaire général te liggéey bi xam naa ne bu amoon ak euh, relation bu baax ak euh, chambre de métier ak sun suñu suñu partenaire ak secrétaire général bi ndax secteur informel bi xam nga dañuy xaw am tuuti problème boobu pour xam fu ñuy jaar ak pour ñëw pour accès am accès bi. waaw waaw waaw. ndax loolu nag comme moom fii mooy suñu chambre tutelle te suñu kilifa ñi ñu ngi fi bu amoon ay relation ak ñoom danañ baax lool boo xam ne day day tax daal boo xam ne ñu këyit du xaw a jafe si ñun pour pour am accès bi ndax fi mu moom lu baax la moom si si si jamono bi mu toll nii ndax formation yi jafe na bëri na mais bi ñu gis nii daa mel ni moo gën moo gën a jub daal waaw moo gën a accessible ak par rapport ak yi def nii parce que d'accord am fi def yoo xam ne si taatu nii ngeen koy def ak ay taatu garab ak ay après du am fenn du am suivi du am évaluation du am dara waaye nag bii moom dafa dafa leer nañ waaw dafa leer dafa ma des taq ñu ngi leen sant di leen maa ngi euh, sant di gërëm ñi nga xam ne ñoo ma accompagner man la madame Sankharé Niagne Guèye directrice centre de formation professionnelle de Mbacké tey dañoo ñëwoon fii gouvernance pour présenter l'unité mobile de formation bi gouverneur. parce que ñun ñi ngi ko jot ci ndimbalu coopération Sénégal ak euh, le Grand Duché de Luxembourg euh, ak suñu ministère mooy ministère de l'emploi de la formation professionnelle de l'apprentissage et de l'insertion ci la ñu gagné bus bi. parce que dañ koo tegoon di ko jongante yàlla def ñun ñu gañe ko bus bi nag njëriñam mooy dem ci àll bi seet ñi nga xam ne peut-être bëgg nañ formation te mënuñu ñëw fekk si ñu euh, sori nañ wala ñàkk nañ moyen moo tax ñun ñu mën a déplacé wu dem ci euh, zone yooyu pour mën a def ay formation formation yi nag moom mooy transformation liñ naan meññeef yi nga xam ne moo am ci Sénégal mooy transformer euh, fruits yi ak légumes yi ak yi nga xam ne euh, mooy soow bi mooy meew bi donc diwliñ ay gerte donc ñebbe donc lépp li nga xam ne mën nañ ko euh, soppar ñi defaat ci yeneen produit loolu moo tax bus bi jóg dañ ñu jox bus bi def ci matériel ne ñu dem leen ngeen di former kenn joxul la nu mu tuddati li tubaab di tuddee intrant mooy euh, booy bëgg a former ci dugub wala wala wala maïs wala mooy céréale d'une manière générale il faut nga jënd lu yooyee donc il faut nga am moyen mais nag Euh, am na ay structure lu demee ki ne 3FPT ak ONFP ak yeneen partenaires yi mooy GIZ ay Palam Performance Afrique population yi mën na dem foofu ci ñooñu ñooñu financer leen formation yi su ko defee ñun ñu mën a dem defi formation yi noonu la mën a amee link parce que déjà ñun am nañ convention de partenariat ak yenn structures yi population yi rek ñoom ñooy dem foofu exprimer seen besoin ñun ñu jóg yóbbu bus bi ubbi bagage yi teg tente yi donc mën a def formation yi ci ci ci diir bu gàtt. parce que tamit loolu moom mooy politique u euh, Sénégal employabilité c'est au cœur de de des politiques. donc euh, ñun ci la ñuy dox parce que ministère bi nga xam ne moo ñu boot mooy ministère de l'emploi loolu ci ci ay ci ay euh, mission wam ci la bokk donc dina tax jeunes yi nga xam ne dañ doon dem mën a toog mën a am liggéey mën ci dimbale seen ay mbokk